Lerna, euh, benen euh, actualité bo xamantene ki di azura Fall ginaaw bi ko dalalee ci benn émission gis nañ ni dafa def ay menaces jëmele ko ci ki nga xamantene moy addu guerre muy ay ñom Bokar yow no jàngate lool vidéo bi bu disponible vidéo Abdou Nguer ngeen jox ñuko ginaaw bi ko azura menacé momit xam ngeen Abdou Nguer du baye mu sét révolté nak daal di tontu ñu déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ngi nuyu mbokki aduna di nuyu waa Sénégal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi jug pour réew mi dox jëm ci kanam kii ma taf ci écran bi nag Azoura Fall la yaakaar naa Salma moo ko dalal fee ca Walfadjri gis nañ wax yu ñàkki teggin yam fa wax gis nañ la mu wax jëmale ko ci général Moussa Fall gis nañ saaga yam fa saaga commissaire Bokar Yàgg gis nañ saaga yam fa saaga force de l'ordre yi gis nañ lam fa wax yëpp yaakaar naa procureur de la république dina jël ay matukayam waye nak lama gëna neex ci biir wax ja dane man mi di Abdou Nguer mom Azoura Fall momay jëlal bopam fekk ma sama kër jël ma yobuma kërëm kidnappé ma légui dama ko ko bëgg yombalal sama numéro téléphone 78 la 207 50 22 78 207 50 22 bobo ba légui nak wona ku ne pour laaj ko numéro azrafa Fall ku ma ko laaj doo ma ko jox legui nak joxe sama numéro ku jot sama vidéo bi na ko partager nama na téléphone wax ma fan la ne pour ma noppal ko ci wër bi mom pour mu wër ma dama koy noppal na wax mom azura fan la pointé man ma ñew fekk ko fa ci cartonu yalla yombalal ko liggéey bi nak bu ñewé sama kër lenen man nako ja fekk bayal rek ma fekk ko fa comme goor la man goor la ñu dajé fofa lu fay defar ne defoon nga après la vie continue na ma wax moom fan la ne na jël sama numéro rek def ma signe ne ma man Azoura Fall mi la bëgg a kidnappé maa ngi bërëb sàngam. kon yaakaar naa ñoo déggandoo li nga xamante ne Abdou Nguer tontu na ko laata ñuy déglu li nga xamante ne attaqué nañ ko. waaw xam nga mooy li ma doon wax sànq il faut que Ousmane Sonko ak Diomaye. Hmm. waxtaan ak njaaw seen njaboot. ñu xam ne ni que ñoom. Hmm. sénégalais faluñu leen. Hmm. du président du ministre du gendarme du policier du dara. Hmm. ay militants lañu rek yu gëmoon projet bi dañuy toog ubbi seen accompagner projet bi ba ñu gis ci seen bopp. Hmm. c'est pas eux de proférer des menaces. sommes su ñuy wax ay waxu dictature ak nangam sangam ils ne sont pas plus sénégalais que nous les sénégalais. Hmm. il n'est pas plus sénégalais que Abdou Nguer nañu déglu ju vidéo baa c'est à aji mhm. soit 10 ans parce que Mamou soit ans am ne tout bu tour mhm. lan nan. oui dossier personnel la. jaarul sax sama dossier personnel la mhm. koy def. ñaar ba koy kidnappé man sama biir non non. non moi je pense que je kidnapping xam euh, c'est-à-dire yéen xam nga tey yaakaar naa ni maturité ak lucidité warul waxee ni ñoom suñu bëggee changement bëgg rupture doon xeex li nga xamante ne mooy injustice ak dictature moom il est kii ba mu ne man maa koy kidnappel sama bopp. déjà est-ce que naan damay dem kidnappel sama bopp Abdou Nguer def ko sama dossier personnel est-ce que moom xam na état de droit il ne connaît pas ce que ça dit état de droit il ne connaît pas ce que ça dit une république bañ nañ ko sax ba nit du la defal nga fayul sa bopp da nga koy yóbbu ci yoon. -hmm aujourd'hui sénégalais yi jox nañu di président ki mu yaakaar muy Bassirou Diomaye Faye jox ko armée jox ko gendarmerie jox ko justice jox ko lépp nommé est-ce que mon tey il doit se présenter pour ça moom la leur di parfois de parfois dañu combat pour nous, ils sont que dañu foog ni que tey Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal c'est Bassirou Diomaye Faye président ñi nga xamante ni ñoom ñoo milité ci parti boobu muy Pastef communauté milité wu loon ci Pastef Bassirou Diomaye Faye warul la gérer ñoom la war gérer ñoom déjà dañu du Sénégal mais dañu inconscient wala ñàkk xam moo leen ko waral parce que genre discours yi ñuy tenir ni, je crois que ce sont des discours qui ne vont pas marcher ici au Sénégal ëpp nañu fit gënuñu ñu doon sénégalais dàq lu ñu xeex dàq ñu ñu dara je crois que nag su dañu bëgg accompagner Bassirou Diomaye Faye pour que nous liggéey Sénégal mhm. ñoom ci seen bopp ñoom ñoo war a dal. dafa am lu ñu doon woote maanaam changement la ñu bëgg sénégalais yi jox nañ leen changement nañu dem doxal te liggéey sénégalais yi teg ci seen bët loolu la ñu a gis mais ce qui s'est passé ici de mars 2021 à 2024 kenn bëggu ko gis donc je crois que c'est des de discours yoo xamante ni ça ne devait même pas le mhm. moo tax Abdou woon na ni que ragal jox na ko numéro téléphone am wax fu mu mhm. dëkk Abdou diw su la nee kaay ñu sànnante xeer dafa fekk xeer nga ca poos ba kon donc je crois que l' état du Sénégal ministre de la justice ministre de l' intérieur ak Bassirou Diomaye Faye bii di soog a ñëw ak son nouvel gouvernement il doit prendre des mesures par rapport à ces genres de personnes là. Ah ça ne veut pas dire que dañu nekkoon ak Ousmane Sonko wala nekkoon ak. nangam suñu defee dara kenn du leen def dañ leen di jàpp ndoxaat leen ci biir kaso bi. il faut que vous respectez les Sénégalais. il faut que vous respectez les Sénégalais falu ñu leen yéen Bassirou Diomaye Faye la ñu fal te du yéen kese yéen a ko fal taxaw ci oto drapeau ça veut rien dire président la république du Sénégal il n'est pas le président de la république de Passif. il n'est pas le président de la république des militants de Passif. il est le président de la république de tous les Sénégalais qui ont voté au suffrage universel direct aujourd'hui sous le budget la yor impôt la yor taxe donc ces genres de discours là il faut qu'on essaie de les arrêter

Mhm. damay toog xool fépp foo xamante ni tey mi ngi fay yëkkatiku dama fay teg sama tànk parce que suba bëgg naa suma voyage ñu ne le président de la république du Sénégal muy Bassirou Diomaye Faye ma titre parce que je suis un Sénégalais mhm. et je défendrai mon peuple je défendrai mon but je défendrai la foi qui unit aujourd'hui notre république qui est le Sénégal donc il faut que ngeen yam delloowaat seen xel te ngeen toog te dal te moom bu est-ce que bu fekkee ni dafa am lu mu jotté ak Abdou Nguer sax mu yóbbu ko jotté jotewul ak dara ñaari salaamaaleykum Abdou Nguer y avait un dossier Adji sar y avait un dossier Ousmane Sonko tout le monde en a parlé Ousmane Sonko lu ko neex wax na fi gui mari Sagna lu ko neex wax na fi Mara Niass lu ko neex wax na fi kep ku bokkoon ci ñom lu len neex wax nañ ko fi saga nañ fi ndayu nit ñi xass nañ fi nit ñi caricaturer ngeen nit ñi man mi saga ngeen ma menacé ngeen ma caricaturer nga mais c'était dans le cadre de la politique jeex na jeex na amnistier nañu tout on a amnistié tout donc tout ce qui s'est passé de mars 2021 à euh, février 2024 hier na tag ko ko on va vers un Sénégal nouveau ni ngeen di bañee Abdou Nguer wax la nonu ngeen waxalee nit ñi saga ngeen fi nit ñi manipuler ngeen fi nit ñi jël ngeen fi sama audio trafic ko def fi lu dul nekk jël ngeen fi sama ex femme tek ko ci plateau pour me mettre en mal avec le peuple sénégalais et tout cela on a consommé c'est quoi il faut que ngeen doon ay esprit yo xamante ay sportif ngeen ay fair play que ngeen wonee ko ci cadre politique ngeen doon demee Abdou Nguer ci cadre boobu la doon demee donc il faut que vous respectez les gens mënuloo ñaari salaamaaleykum ci Abdou Nguer mënoo kidnappé ma Samba bay kidnappé ma Demba su dee nag da nga foog ne da nga dugg kaso génn foog ne guerrier nga je crois que guerrier du dugg kaso génn xam nga guerrier ci lan la mm. guerrier ci mentalité la guerrier mm. ci lan la ci esprit de dépassement la guerrier ci lan la ci wane ni que esprit gentleman la guerrier ci lan la lii moo fi xewoon parce que lii laa bëggoon yàlla jox na ma damay avancé c'est ce que Macky Sall a montré te ñoom dañu ne focus sax li Macky Sall wone Ousmane Sonko woné ko Bassirou Diomaye Faye woné ko lolu moy esprit guerrier lolu moy esprit gentleman c'est ça qu'on attend de vous lan lañu soxla manam moy Sénégal liguey dañu tarre booy yi bañ jëlati gaal yi Nicaragua bi gars yi bañ fa demati yomb ku fi si ci marché bëgg a ñaxtu ngeen autorisé ko comme loolu ngeen don bañ donc je crois que yimuy wax ni xeyna daf koy wax ci ay plateau yo xamanteni peut-être émotion moko yobbu mais c'est pas ça qu'on attend de lui mm-hmm. da nga xex tay ba tollu fi yalla jox la nguur Wonel ni que liñ don xex sénégalais ñi ngi xaar yow liñ don xex li lañ leen bëggoon indil changement bi lañ leen bëggoon indil dictature bi lañ leen bëggoon indil mais tay yow do yaay don principal dictateur on est dans quel pays si vous croyez que vous êtes plus sénégalais que les sénégalais vous vous trompez on est plus sénégalais que vous on est plus patriote que vous on est plus fier de porter le drapeau tricolore le vert

inspection et domaine am suñu quitus fiscal ba paré participer fay ko daal di ciy sukkandiku nekk ci ba nopi di créer emploi di jënd ay matériel ba paré di participer suñu société lépp lu ñu def muy bu feeg muy électricité muy courant lepp ñu ko ciy def donc ñun on est fiers d'être des Sénégalais et on est des gens yoo xamante tay Sénégal daf ñu war a delloo donc ces genre de